bi sunu yaay depuis 2011 mu tok 3 ans de mariage soxna il est né de 74 mom mu 81 ans comme 82 ans depuis lors ñi ngi muñ soxna si ñew na fi xañ nañu xañ nañu naan lepp lu mu def lu ñu def mu du ngeen def ñu accepté lu mu wax ñu nangu ndax bañuñu si dara ndax suñu papa suñu papa la yàgg nañoo defal ñaari junni la ñu daan jox dépense diiru bu fi soxna si dikkee bu duggee ba tey dépense joxatuñu ko dafa ber njël bi dégg jël waañ bi teg waañ bi fële ñun ñuy togg ci ëtt bi suñu ndab yi ne ci ëtt bi ñuy toggee ci ëtt bi jël suñu bagage lu mu def ñu ne gongo ba léegi soxna si may ñu jàmm ber ndugg mi duñu jox ndugg ñaari carotte ñaari pombiteer ñaari soble loo xam ne xamuñu ko dem na si ma sama papa ne kon affaire bi léegi sama soxna kese lay jox dépense joxatuñu dépense ñuy dundal suñu bop avec l'aide de nos sœurs lolu mo fi nekk bonam nak jàppanteeg sama sœur mu ñew dugg ci indi ci ciow lu dul jeex wax sama rakk lu ko neex ne ko doto fi jar lu nekk mu traité ko ko ba mu neex ko mu jékki-jékki ñu defee ne wax ji jeex na ñu demee démba yeer ñuy ñuy le lendemain si fee bi ñuy reer yakkal suñu papa reer fëgg bunt bi jox ko reer bi moom madamam ci boppam moo teg moo ne sama doom tegal reer bi fële mu jël reer bi teg ko fële bi mu tegee reer bi ba pare mu génn mu ne mu ne sama doom bi merci moom ndaw si ne ko jërëjëf ba pare daal di génn sama doom génn mu daal di wëlbatiku Euh, ubbi bunt bi yendu di xool ba xam ndax sama petite sœur bi mi ngi taxaw si reerukaay bi wala déet jotoo ñoo reeragum sax nekkate boobu baxal na ndoxam ba mu tàng def si dowliñ na ko sëpp si kawam soode na ko yaramam bi yëpp lakk na kanamam desul dara desul sama doom lakk na sama beneen petite sœur lakk na ñetti nit la lakk soode na leen waaw lii daal man mënuma xam fee bi lu mu doon kii daal capable na capable na de ah capable na te sama papa tam moom la àndalaan ah. ba léegi sii nii moom la àndal wëlbatikoogul ba léegi ne doomam naka nga def waaw fajul xoolul voilà xaw ma lu mu def na policiers yi taxaw di ko xaar mun a copp ci ci néeg bi xaw ma dafa jël paaka dagg loxo bi ba pare génn naan dañ ko fekk foofu jam ko c'est pas vrai c'est pas vrai sama sœur dugg fa xoolu ko tout la journée nekku fi woon dafa demoon léttu ji bi mu ñëwee lañ ko woo reer muy génn ru reer moom daf ko nennu lam ko waxoon la ko def dafa ne dina ko yàq yàq na ko c'est